yërëm ëpp na wallaay yërëm ëpp na waaw suñu àllin nee na ci mujj dund Maodo léeg-léeg nit ni ko yeesal ma mu ne ah, ma gaaw yeesal la xam na koo xam ne yeesalam du yomb waaw am na koo xam ne yeesalam yeesal ma rek du tax nga jot si foog nga wax ko li nga def ba yeesu loo ci mën nee na ca ndar dañu ñëw ni Maodo rekk weer yi feeñ na ndeysaan mu fanaanoo weer wi feeñ na bërset ñëpp solu mu solu génn jëm ci jullikaay ba ñëpp topp ko mu ñëw ba ca buntu kër ga ni ani Babacar ñu ni ko ah, Babacar kat wariwul mu ni lan ni ko wariwul kat ndax ñi la wariloo doyuñu ko mu ni kon nañu yéene ku wari na jàpp seetal bii wone seetal bii wone waaw nañu yéene laa wax ku wariwoon na jàpp loolu cëru borom la loolu cëru borom la waaw Uh-huh. uh-huh.